né à Canel, né à Canel, grandi à Canel, grandi entre Dakar et Canel, qui a fait ses études secondaires à Dakar, mais qui, a, à partir de 22 ans, a, a fait l'aventure euh, jusqu'à jusqu l'âge de 30, 35 euh, ans au Gabon. actuellement nag maa ngi yëngu ci médecine naturelle je crois qu'actuellement je ne suis plus quelqu'un à présenter monde bi xam nañ ma déjà cabinet njatiri bi may bi may diriger j'ai l'habitude de dire que c'est un voilà ñaan bu nangu la wax naa ko ci ay émissions yu bëree bëri ay xalwa lañuy dugg di ñaan borom bi ku aajam dul faj sax bu mu egg si ci léegi moom phrase boobu ñëpp jël nañ ko fajkat yëpp léegi génn nañ waaw je crois que boo leen xoolee archive yi man maa njëkk ne képp ku aajam dul faju yàlla bu mu ñëw ñuy jëflante voilà donc on la là a révolutionné la médecine quoi gëm suñu bopp nag waaw te xam ne hmm, gëwuma médecine moderne j'ose le dire maa tey et xam naa ne médecine naturelle bi may def li muy faj médecine moderne du ko du faj parce que télé nañu ci arthrose télé nañu télé nañu ci rhumatisme télé nañu ci polyarthrite rhumatoïde télé nañu ci nerf sciatique télé nañu ci hernie discale télé nañu ci diabète télé nañu ci AVC télé nañu ci hépatite te maa ngi koy faj télé nañu sax ci spermogramme du nécrospermie du azoospermie du hypospermie du oligospermie du asténospermie du téranospermie du hyperspermie mënuñ ci tus ku ko am di nga jël ay médicament pendant cinq ans doo gis benn résultat parce que les origines ñoom xamuñu ko ça n'existe pas dans le vocabulaire français mooy ndoxum siti colopathie télé nañ ko man je règle ça à une seule prise colopathie que sa soit fonctionnelle ou chronique benn prise hémorroïde moom kenn waxatu ko voilà donc euh, maa ngi xaar nga poser question ma développé la. Euh, donc balaa ñuy ñëw si wàllu faj mi ba pare euh, yi nga lim nii yëpp noo ko jàngee nan nga ko xamee ba maîtriser ko tey nga am si ay solution te médecine bi amuñu si solution. don de di ci gërëm nag ku tudd Ndiol Ba di ci gërëm ku tudd kenn ji bi añam gono yéen nag yàlla yërëm. di ci gërëm Thierno Ousmane di jaaba di ci gërëm ñi ma jot a xam enda di ci gërëm marocain yi tunisien yi mauritanien yi gabonais yi ñi nga xamante ne jàngal nañ may ay di gërëm surtout allahu subhanahu wa taala que bu amee barke moom la daawal naa def maraboutage asraar di dóor rek di dóor yanke si xaalis nit ñi rek ay million rek fu moroom bu ñu ne jom gonga ngi ne kii moo dëgg gi fekk da ngay ñëw nga wax ma sa aaju ma encaissé un million duma tere nelaw su may wérde samay awraadu bopp lay wérde sa problème bu réglé temps mi bu réglé set pas moom problème parce da nga ñëw dénk ma problème pour ma ñaan si yàlla c'est pas forcé d'avoir le résultat te dama leen naan incha allah xamuñu bëri xamuñu ne sëriñ dañ leen di nax incha allah kay aaju leen faju ah nee na la incha allah war na la que moom mooy faj aaju et je me vois mal di ñaanal nit mel ni maa ko gën ci yàlla nit ki bu nar jël 1 million 3 million di ma fay di ma ñaanal. bu demoon jox ndeyam cinquante mille jël dix mille dem ci daar alxuraan yi saraxe laax aajam dina faju mooy gën a gaaw sax waxuma nag ñaan amut mais man li ma doon pratiquer asrar gëw gëwuma ko ci xale il fallait que j'aille chercher mieux pour lekk lu lew ñaaña faal ajaa ñaaña faal bu Kolda mu ngi may dëgg moo ma héberger këram Kolda pour li ma lekkoon posone bi ma lekkoon yëpp mu génn comme musaa ni mu nekkoon kër bu ba posone bi mu nekkoon kër Firawna yëpp génn moom moo ma doon dundal may jaamu yàlla di baalu yàlla ak parce que xamoon naa ne am naa potentiel xamoon naa ne y a un secret en secret faj ñaan ci yàlla nag ba yàlla nangul bi ma yàlla nangule yee naa ki ki ma dendaloon nee naa ko li ma doon war am naa ko c'est fini ma mission à Kolda est terminée ma dem te bi ma ko waxee ba léegi gis nañ ni j'ai chaque jour macha allah day ko rek tey j'ai même pas besoin des médias bouche à l'oreille bi bi ma am rek sant ci yàlla bu wéree wéree wéree mais bu soo gisee tey lii par je crois que même yéen c'est rare ngeen def lii. xanaa benn ministre wala président wala député bu boo conférence de presse. mais lu tax ñu def ko parce que jéego yi nga def la ñu intéressé wu ñëw si yow pour waxtaan ak yow quoi. wii média jàkkaarloo ak fajkat sant yàlla kii Mahfouz sama chargé de communication la un an ñu ngi ensemble dara ñaaw te xam naa nitu dëgg la su ma nekkoon ci kàcc. il ne va pas hésiter à su ma ko woon sax du ñëw am na fulla te am na personnalité aussi libaas ma doon idolam mooy woy papaati mënu ma ko jur su gisuloon aussi su gisoon caaxaan du ma nekk idolam man dama def ma leer na wërsëg yàllaa ko yor damay sabablu rek bu dee nag wërsëg àdduna man damaa doylu je je crois que man maa gën a riche àdduna bi yëpp parce que damaa doylu ci li ma am wutatuma leneen bu dee ay kër am naa ko bu dee ay daaba am naa ko bu dee njaboot am naa ko bu dee ay jabar am naa ko lu mën a mati fu ma dem sama caabi ngi sama poche maa ubbi sama kër dugg nekkuma ci loise et j'ai j'ai j'ai autant de respect j'ai même pas besoin de garde corps tey popularité bi ma am fooy dem escorte la ak garde parce que xam naa ci dëgg laa nekk te ñëpp a ma soxla c'est une fierté même pour ma famille gaare sa oto dugg ci Auchan walla dugg ci jënd ay ay jën eh, benn marché nga gis ku nekk daw ñëw ci yow say doom say jabar day gis eh docteur Diallo eh nangam nangam c'est beau hum et c'est ce qu'on a besoin on souffre pour ne pas souffrir on travaille pour avoir une dignité loolu moo tax may liggéey ma déggu nag ci li may def am ci fulla nag bu mot sëkk ñëpp xam nañ ko patient yëpp xam nañu fii fulla fi ne ak loo mënta doon ak koo mënta doon boo fi ñëwee sama kanam doo doo ma ko woon ci patient rek ci réduit à zéro ñu toog nga gis yàlla bi ne ci man ma gis yàlla bi ne ci yow ñuy jëflante nee naa ñëpp man xaw ma dara mënuma dara man j'ai un cœur pour écouter une compétence pour soigner Dieu pour guérir lii mooy sama slogan dégg boo ñëwee ñu waxtaan man duma ma consulter du ma fay ko consultation du fay ko ticket am na un certain Diallo là que j'ai comment donné euh, carte visite mu ngi golf di di di di jouer à mon mais nit ñi defuñu yéen a ngi may gis ci YouTube kay soo leen demee gis du man kay war nga xam c' comme am na fii aussi Petit Mbao fii am na beneen docteur bu tudd Diallo Ibrahim kooku booy booy fay ko 10 000 consultation lay fekk mën na fay consultation boo demee kay ñu neen fay consultation 10 000 nga xam ne ñëw ci Abdoulaye Diallo moom Petit Mbao fële la nekk yoonu Grand Mbao man maa ngi ci mango yi léegi sax clando yi bu leen lee sax arrêt mango yi ne leen rek arrêt docteur Abdoulaye Diallo jeex je suis maa fi mujjee dëkk maa fi gën a populaire sant yàlla et je fier aussi de tout ça je suis fier d'être euh, en face des hommes comme vous tey laa la mos a gis yow mais ci suuf ni ma déggee nga wax sa famille rek xam naa ne t'es un homme responsable ça déjà c'est c'est une richesse lii mooy richesse am nit ñu baax ñi xam nga man mosuñ maa may lu dul ren gis naa fi ay pañe ndogu ay suukaru koor ren lañ ma mës may am na benn femme médecin euh, infirmière la en Italie maa ko faj euh, hernie discale mënu loolu sax bouger j'ose même appeler son nom numéro ma ngi nii maa ko faj hernie discale actuellement démb la ma woo mu ne ma benn femme euh, la jox koli daf ma ko war a indil des parfums de classe musuñ maa may bi ma juddoo ba tey léegi lañ may doog a may c'est parce que j'ai fait de je, je je me rends que je suis quelqu'un je suis en train de faire de bonnes choses sama accident bi ma def nii euh, findel na ko les appels que je reçois les pleurs que j'entends euh, ñii daw jublu kër gi ñii jógee Fuuta ñëw fekk ma Touba ñii jógee Dakar ñëw fekk ma Touba fi ma hospitalisé woon firndeel na lépp bon docteur euh, vraiment euh, man xaw naa yéemu ci quoi simplicité bi ak sincérité bi quoi si biir discours bi loolu laa sentir mais dañuy dugg si wàllu faj mi mm-hmm. euh, gis nañ ne wàllu bi ngay lim si hépatite B nga mujjee mm-hmm. gis nañ ne moo ngi def ay ravage yu métti métti métti si biir réew mi mm-hmm. mën nga ñu wax lan mooy hépatite B balaa ñuy dem si solution yi avant tout d'abord hépatite 5 hépatite ñoo am dafa am A am B am C am D am e. e bi xaw ma ci dara D bi xawma ci dara C bi mënuma ci tus B bi lay faj A bi anticorps yi ñoo koy jël B bi nag moo lëmbee réew mi moo lëmbee àdduna virus la moom ak virus sida ñoo nuru li koy joxe la plupart c'est les fruits de mer dégg nga de maa ngi ciy def ay preuve yoo xamante ne yu extra extraordinaire ba ay docteur di ma consulter di grands médecins européens ma yéem leen sax bokk parce que am na benn docteur bu ma ne parce que Suisse la Suisse la nekk gis na mu am trois patients yoo xam ne maa leen faj mu jaral ko mu déplacé wu mu ne ma avant tu soignais en six mois maintenant tu as dit huit mois lu tax ma ne ko parce que xol bi ak fois bi dañuy nëbb deret boo xamante ne dañ koy génne chaque 45 jours comme genre reflux comme comme genre reflux comme comme genre quoi mu kit laa di ma ne ko xam-xam yàlla la la ñose boo ko xamee am na yoo xamante ni du la të ma ne ko si tu le il faut le savoir léegi bu dee 6 mois yi 6e mois yi wala 5e mois bi deret bi dugg ci deret bi duggoon ci kii bi génn na ce sang là infecté léegi 6 mois yi pare na boo demee deret boobu bu génnee il va réinfecter tout le corps donc c'est pourquoi j'ai rajouté 2 mois comprendre nga. ñoom boo amee hépatite B dañ lay jox ay rendez-vous 6 mois demal ñëwaat demal ñëwaat ñu naan mu ngi nelaw yeewoogul yow lii nelaw munoo ko munoo ko faj bu yeewoo foo jëm ba nit ki dee j'ai interpellé Mahfouz barki démb bi ma defalee émission ci sama accident bi le lendemain dem ko woo ma ne ko il faut une autre émission parce que ñu indil benn kaa boo xam ne c'était net net net le gars bu yéexoon tuuti mu dee ci hépatite bu yéexoon tuuti rek tumeur bi mën na dem ba néewiloo biir bi wala tànk yi mënutuma ko faj affaire bi dafa yi mais l'État a sorti 14 milliards pour des recherches sur l'hépatite ci télé laa ko déglu il y deux ans boobu j'étais Ziguinchor ils ont un digne fils de ce pays qui traite l'hépatite B j'ai tout le temps lancé des messages bu dee kay xaw xaw mu ni ko olof di waxee werante xuuxaan tekki tubé wala ñun on ne veut pas croire li tubaab bi xam rek loolu la la ñuy xam li tubaab bi wax rek loolu la ñuy wax tubaab daa mën a faj dara ñoom ils se soignent avec des plantes dañoo mën a faj palu dañoo mën a faj grippe ma jox la benn exemple boo sojee boo jëlee boo demee pharmacie jël garab trois jours yëpp soj bi day dem rek day day tar rek bañal jël garab trois jours aussi da ngay da ngay soj rek c'est pareil man boo ñëwee ci man bopp bu metti doo génn sama kër wéro boo ñëwee ci man bu métti doo sama kër wéro yooyu ñu jox la garab naan la matin midi soir ci biir bu metti rek wala boobu metti te biir day rey góor ko teg ci seen xam-xam mun leen ko ñun mën nañ ko man kolopati kooku kay moom loolu loolu loolu loolu werantatuñ ko sax sonal na nit ñi ah. colopathie man benn prise 15000 francs lay jar benn yoo ngay naan garab bi ngay wér que ça soit fonctionnel ou chronique benn yoo ngay naan garab bi en 8 heures temps nga ak ak ak colopathie mais colopathie colopathie mooy ndeyu feebar yi moom ak siti colopathie mooy indi hémorroïde colopathie mooy indi rétrécissement sexuel colopathie mooy indi éjaculation précoce colopathie mooy indi faiblesse sexuelle mais pas impuissance sexuelle colopathie mooy tax tànk yi di tàng colopathie mooy tax ndigg di métti colopathie moo tax fii ba fii di métti colopathie bi bu demee ba jox la hémorroïde fii ba fii day métti da da ngay mel ni ku fasu da ngay mel ni ku ñu liggéey pour nga yeew sax problème la pour nga nelaw sax problème te boo nelawee pour problème la sa yaram di tàng colopathie day lëndëmal bët colopathie day indi des moo de tête yu dul jeex ci àdduna man par exemple boo amee migraine tout le temps nga dem fu ne doo wér man ci biir bi lay njëkkee damay vidé biir ba pare laa lendemain nga ñëwaat ma ma am lu ma la def doo génn kër gi boobu ba léegi damay delluwaat si hépatite B bi. Mhm. Euh, tey wàlle walla du wàlle. très wàlle kay. très contagieux ak lay wàlle. non très contagieux rek c'est-à-dire boo ko amee rek moytul c'est une maladie infectieuse nag voilà justement euh, tey wàlle dafa nga am infection voilà infection par exemple est que hôpital mën na ko def man dama la koy faj ci 4 semaines même bu dee commencé nga di génnee pu. même bu amee góom quatre semaine fibrome dañ ko opérer man dama koy traité solon la longueur selon la diamètre deux mois trois mois quatre mois cinq mois kyste dañ koy opérer man dama koy faj naan garab mu deñ hernie dama koy faj naan garab mu deñ nerf sciatique ñoom sax dañuy naan nerf sciatique hernie hernie discale dañu koy naan nerf sciatique c'est pas vrai c'est pas pareil je suis désolé L4 L1 L2 L3 L4 L5 C1 C2 C3 C4 xam nga ne ak nerf sciatique bokkul il faut il faut donner la différence L4 L5 ñu ne ko neex sciatique L1 L2 nerf sciatique ok L4 L5 pourquoi nerf sciatique mënuñ ko dañ lay opérer opération bi risque la mën nga ñëw ma faj la ci 4 fois 4 semaines 16 semaines et tu ne paies que 40 000 par 4 semaines donc 160 000 doo opère nga wér polyarthrite rhumatoïde dañ lay bës ay corticoïdes lañ lay nanloo ba nga bëgg a dee avec tous les effets secondaires que ça comporte day calmer douleur rek douleur mos a faj man je te soigne en 4 fois 4 semaines rhumatisme mënuñ ko je te traite en 3 fois 4 semaines nerf sciatique en 3 fois 4 semaines parce que nerf sciatique ak hernie discale bokk duñ ko mës mën a faj parce que xamuñu day siti te siti mooy siti mooy wooloo yëkk yi duñ ko mës mën a faj man balaa may faj arthrose da ngay eh, faj siti ba pare après nga def 3 fois 4 semaines 3 fois 4 semaines pour arthrose donc 12 bi ma doon wax sànq duñ ko mës a mën a faj parce que siti mooy mooy rey maniou bi bëri na ay jigéen par exemple yu stérile yu mënul am doom ñu naan rab la c'est pas du rab c'est pas vrai siti kese moo leen tram doom mais siti bii nag du ni ñu koy fajee ci mbedd yi de ay reenu daqaar ay reenu dànq ay nangam c'est pas ça siti dafa am lu koy traité bàyyi leen reenu daqaar boo leen bëggul pro am problème problème de de rein je suis tout à fait d'accord nag ñu contre la médecine traditionnelle parce que ñi koy pratiquer 98 pour cent jànguñu médecine xamuñu dosage xamuñu sax valeur nit xamuñu sax poids nit ñoom daal xaalis la ñuy gis mais bon Dieu euh, croyez quand même en à mettez Diallo sur épreuve et am na lu état bi xamul xam nga dañ ma minimiser ça fait un an maa ngi wax avril ba léegi avril daaw ba léegi maa ngi wax ci ci ci réseaux sociaux woo naa leen alerte naa leen laaj naa leen sama sécurité dañ ko veiller et j'ai droit à ma sécurité j'ai droit de réclamer une sécurité parce que je suis citoyen. pourquoi parce que y a des lobbies. saa nga foog li may wax nii dañ ma bàyyi noonu toog di naan ñu dara. ñëpp xam nañ ne pharmacie lobby la ñëpp xam nañ pharmacie ak or ñoo nuroo ñëpp xam nañ pharmacie ak ak ak ak ak ak pétrole ñoo nuroo. nañ ni temps yi tamit garab yi nu muy duggee. kooku ça c' est pas mon problème. loolu c' est pas mon niveau man je parle de ma médecine. Mhm. nañu bàyyi ni ñi ñuy naan bàyyi leen médecine traditionnelle. arrêté suñu bàyyi médecine traditionnelle ñun ñu mën a faj ñoom dañ ko mën a faj yéen xamu leen dara te ñoom fii la ñuy mujjee bu ñu amee pàcc maa koy faj ñii di naan arrêté yëpp ñu ngi daw jabet seen jabet maa koy faj. entre parenthèses parlant de diabète je m'excuse auprès de tous les patients xër pendant deux mois xër kese taxoon na may mélanger garabu diabète ak pancréas mënul ànd xër kese danga fa faj ba pare bu la neex nga renouveler sa pancréas mais boo booy mélanger ñaar yi doo gaaw wér am na nag ñu ci wér mais je crois que c'est 60 pour cent qui d'échec mm-hmm. léegi bàyyi naa loolu je soigne rien que le diabète. bu defee 0 ba 4 ans je traite ça en un mois 4 ans ba 10 ans en 2 mois 10 ans et plus c'est 3 mois te dañuy ñëw fi di ko faj léegi ñoom ñu ngi yéene fii ay clients de barke Nabi Moustapha même des pharmaciens envoient des des des patients yi wallahi barke alxuraan bon c'est que y des gens ils ont de très bon cœurs dañoo xam ne nit ñi dañoo feebar xam nga plateau médical Sénégal ça va pas xoolal prostate da dem ñu sonde la sonde la ba infecté la man je te traite en 4 semaines du laal sa tuuba muy prostate buy sawla lu bëri muy prostate bu tëj saw yi muy prostate bu am góom muy prostate bu tàng muy prostate bu néewi comprendre nga dem na koy faj en 4 semaines maximum en 2 semaines sax mën nga wér docteur Samb mooy naan yow da ngay naan en 4 semaines man damay naan en 3 jours parce que prostatam ci 3 jours laa ko faje soxlatoo naan cardox du dem déggoon sama vidéo ak Mansour Diop rek ñu dem defi réunion kii warul wax lii warul wax lii warul wax lii en avril dernier te informé de tout ça dañu maa mën a dara man de <laughs> chacun a libre de s'exprimer du ma tooñ nag liberté d'expression ne veut pas dire insulter les mais man dama am sama dëkk ma xam ne je peux sauver mon peuple et je suis né pour sauver ce peuple là mais dama koy wane te li ma doon wax léegi leer na ça fait un an ça fait un an que ça dure et j'ai fait des résultats xanaa ñoom ñoom mënuñu jël même ñaari agent secret wala ñaari ñaari agent rek ministère la santé de décréter ñaari agent wala ñett sax ñuy ñuy ñëw yéen ak may liggéey chaque jour qu'il faut qu'il fasse le rapport barke Seydina Mouhamed bu ñu ko defee dinañ ma jox plus que l'hôpital Dantec man maa la ko wax parce que je sais que l'État veut soigner son peuple mais problème bi nag à qui se fier c'est ça le problème man je sais je les comprends mais quand même noonu noonu di na ñu gëm kenn au moins kenn kenn rek kenn nañ ci nañu gëm kenn rek man nañ ma testé rek bu ñu ma fay dara soxlu ma seen alal man li ma yor doy na ma ñaanu ma yàlla lekk dërëm état man kay état moo may lekk samay impôt indirect su ma jëndee oto ki ma jaay oto douane bi ma li mu fay maa ko remboursé su ma jëndee essence fay naa TVA su ma naanee eau minérale fay naa TVA su ma jëndee téléphone fay naa TVA su ma woowee téléphone crédit fay fay naa TVA su ma naanee ndox fay naa TVA su ma sangoo fay naa TVA samay garab bu ñu koy transporté fay na TVA man kay maa leen di fay. donc docteur dañuy dañuy tëj buntu hépatique bi ak euh, benn question euh, Sénégal yi bari na ñu mu dal am na ñoo xamante ne. Euh, dafa avancé mu am ñoo xamante ne ay porteurs sains la ñu léegi ñun li ñu buggoon xam. je signale que l'hépatite B. li ñu bëggoon xam hépatite bee ci boppam mën na nekk tumeur. waaw am na fu muy ak lu mënuma ko. waaw pour question bi s'il vous mhm. man li ma bëgg a xam. c'est-à-dire ñi nga xamante ne ay porteurs sains la ñu. Mhm. ñooñu ngay faj wala ñi nga xamante ne hépatite bi dem na nekk ci foie bi. comme commencé na développé boo commencé di. moom laa la wax ni porteur sain ok. Parce que qu'on les appelle séropositifs. C'est comme dire séropositif en sida. boo demee kay bu attaqué fag yi nee naa la léegi-léegi balaa ngaa jeexal sa question sax mënutuma ci dara mais nag bu dee avancé wul bu dee tuuti tumeur nga am mun naa la booleel garabu tumeur garabu hépatite ça va te sauver j'en ai sauvé trois j'en ai trois seen numéro yaa ngi nii man kay maa ngi leen di xaar rek ku fi wér ku fi bindu yor naa sa Regarde le cas de Tout le monde connaît le professeur Noa Cissé de Ziguinchor. Hmm? Tapez sur YouTube, Noa Cissé. Même la France est venue faire des honneurs à Noa Cissé à Ziguinchor. maa ngi ko faj diabète. dem leen sama YouTube c'est témoignage am yaa ngi foofu. diabète am maa ko faj loolu en 2020. astafurlah décembre 2019 maa ko faj ba léegi amatul cas jabet da nga koy judduwaale. non illa euh, day ñëw nii naturellement quoi nga wax ñu si. man am naa jabet actuellement judduwaale wu ma ko sama papa musul am jabet musul am tension il est toujours vivant yaa may dégg mm-hmm. mais temps yi xam naa ne am naa suukar am na ñoo xamante ne dañ koy hérité dañ koy doon. yaa ngi may dégg am na ñoo xamante ne nag ci lekkin bi la ce qu'il faut nag arrêter c'est de prendre du poids comme genre ñi ñii kay seen tension seen diabète day yomb nit dafa sénégalais dañu am benn culture bu bu dof quoi pata yaram yaram lu muy njëriñ yaram lu muy njëriñ yaram kay maladie rek man client jabir bu ñëwee sax gis nga ni ma maigrir ma ne eh waaye maigriral moo gën grossir maigrir bu ñu xamul lu ci ne cholestérol xoolal cholestérol par exemple benn garab lañu la jox un comprimé par jour ngay jël man je te traite en 3 fois 4 semaines ou semaine mu jeex. man mooy fa mooy sama feebar. Ah, kooku de xaw ma ko <laughs> comprendre su ma toogoon ci bëri bi nag boo jàkkaarloo ak man rek mën naa xam. am mais ñii ne moom si Abdoulaye Diallo simple Abdoulaye Diallo mais su ma toogee nag moom di liggéey ak kooku moom indi jaay duñu fi la xarit tam ça c'est lieutenant de di travail docteur ñoo ngi lay jaajëfal bu baax euh, gis nañ ni depuis un an Covid dugg na si biir réew mi mm-hmm. te taux de mortalité bi lu tax mu gën a bëri mm-hmm. euh, Covid day ñëw rek fekk la nga am jabet mu def ay ravage yu bëri. xaw ma ci dara léegi nag. Euh, xaw ma ci dara yan solution. xaw ma ci dara non xaw ma ci bul ma dugal ci affaire Covid. s'il te plaît dem nañ ci professeur Seydi. maa ngi ñëw ba léegi question bi. ma ne. Ah. bul ma wax waxu Covid ay diabète ay. donc damay damay formuler waat question bi léegi. Mhm. waaw euh, gis nañu diabète un an bii nii ñu nekk nii ñu bëri dañ si décédé. diabète wala Covid. non diab en fait c'est-à-dire euh, Covid bi bu ñëwee. moom laa la doon expliquer. waaw mais moo tax nag mais question bi question bi. moo tax ma ne la moo tax nag ma ne la bu ci dugg. waaw Covid lal lu ci lii ay tuxkat cigarette yi duñu jàpp duñu jàpp Covid ay tension ay jab bu ma ci bu ma wax loolu ma xamul. léegi jabet lan nga yaakaar ne loolu mooy solution pour mu mën a wàññeeku pour nit ñi mën ko moytu. am régime bu baax des sports wàññi suukar Sénégal dañoo bëgg lu neex on mange mal très mal koo gis dafa am colopathie ak hémorroïde koo gis dafa am cholestérol koo gis dafa am jabet. xoolal ni ñuy defaree bisaab rek lu ne lañ ci dugal boo nee ni ñu defar ba mu baax damaa xamul lu ñuy defar ba mu baax bisaab ni mu baaxee boo ci defee tuuti suukar kay doy na waaye dolli ci jinjeer dolli ci naana dolli ci te naanaa bu ñu baxal day rey góor ataaya sax ataaya boo koy def bul bàyyi naana ci biir baraade bi muy bax day wàññi sa ngóora bouillon yi ñuy lekk nii xoolal nit nga dem ci xew nga gis benn plat poulet poulet bi am ay nen am len ak len ñu naan nag si joli ah décoration bi ah sa décoration rafet na yaa ngi lekk lu bon poulet nen jën nen fiir yi sax ñu dafa ci nen sénégalais mange mal ceeb ceeb ceeb ceeb guddi ceeb bi bëccëg ñu foone nag ñoo fi toj léegi on a une alimentation pauvre en fibres c'est pourquoi y a trop d'hémorroïdes ici xoolee hémorroïdes gars yi dañu leen di baab di lekk seen 200000 seen 300000 di leen jox 50 millions de bouteilles man si bouteille nga wér 45000 ngay fay 15000 colopathie bi muy raas biir bi 30000 hémorroïdes wér nga xaaral sax ma bañ ko jox secret gars yi ñoom xamuñ ni feebar hémorroïde ci biir bi la nekk du ci anus bi boo fajee fële fajoo cause bi mënoo faj c'est pas possible on soigne le mal à la racine mat boo ñëwee bëgg a faj eh, sa problème spermatozoïde wala sa problème stérilité wala sa hémorroïde wala sa arthrose mais man damay dem d'abord le mal à la racine. parce que nee naa la sànq ak spermatozoïde duma ko faj dindiwoo d'abord cité bi je vais te dire képp kuy constipé nga yëkkati lu diis ci exposé à hernie discale mosoo dégg tubaab wax ko hernie discale ñi ko am ñépp dañ doon seere ñu yëkkati lu diis maa ko wax ñi ñi ko am xam na xam nañ li may wax seere moo gën a bon ci feebar yi seere seere aussi tamit docteur bëggoon nañu xam maladie yi ngay faj yëpp ban moo gën a sonal Sénégalais yi. hémorroïde colopathie city franchement colopathie nag moom liñ ci liñ ciy joxe ci garab par jour oh, loolu loolu la ça dépasse norme colopathie c'est que ku ku gis day wax keneen ki te kun laan garab bi benn yoon doo dogo bàyyi est-ce que xam nga booy raxas sa biir doo feebar nit biiram la. man na ngay ñëw sax nga a Maldives xamoo sax loolu dal barke Seydina Mohamed am na ko tudd Fatou Traoré le bi dañ ko yëru indi ko fii mënul yëkkati lox ay weñ sax dañu doon dugg ci gémmiñ bi garabu kolopati laa ko jox barke Seydina Mohamed deuxième jour moo taxaw boppam yëgal fi ba tey tey tey sax ñëw na rendez-vous parce que kolopati day dem ba jox la sax ulcère butéel bu ñu demee ba bouché da ngay lekk nga am reflux gastrique reflux bu yàggee mun na daj butéel yi mooy infecté mu dem góom góom bi lañuy wax ulcère estomac ak ulcère d'estomac xam nga da ko wutee estomac bi day métti ulcère bi góom la lii rek moo ko wutee boobu kese tey elle en forme ci ku tëdd xaw ma 8 mois la wax xaw ma te ñoom benn seetkat moo leen yóbbu leen ko ci Abdoulaye Diallo moo koy faj dafa ñëw nag man gëwuma ko gëwuma loolu man parce que man li ma gëm mu mooy alquran laa yaalamul ghaybi illa allah kenn xamul la nëbbu ku dul yàlla seet moom bu ma kenn waxoo ko seet man xaw ma sama bopp nu may xamee jàmbur yow boo ñëwee sax dama lay laaj sa tur ay waay mu ngi mel ni ay kon y a des gens ils sont bêtes dem ci sëriñ naan dama bëgg am xaalis nga ñëw di joxe ay 1 million 2 million 3 million pour am xaalis est-ce que loolu loolu loolu dugg na xel sëriñ bi jël benn siwo di ci génne xaalis wala nga nga dof xamuñ ni ay naxaate kese la kese kese kese kese kese du gis nañ fi ay ay ay doon naan ay fajkat lañ ay sëriñ lañu ci plateau télévision bu mel ni TFM nga xam ni c'est suivi par le monde entier ñu naan dañuy luxus benn waaye jël mu ne teg leen fii benn benn benn benn benn kaala ñu teg kaala muy naan ni naan ni di génne xaalis fu mujje fu mujje xamul ne ay yu ndaw mën nañu loolu élastique rek la ñuy dugal fi élastique élastique nga dugal fi xaalis bu la neex sol sa grand boobu def nii kaala bi bu ñëwee nga naan nii nga génne léegi nag booy ñëw si tu veux tu prévois même les dollars et nga def ko main gauche bi nga ne yow loo bëgg euro fekk xam nga euro a ngi fi yow loo bëgg dollar yow loo bëgg CFA il a tout prévu li may xam mooy càngat nga sangu nga am alal nga xaar ci yàlla nag da ngay sababu sangu te góor góor ñaar yi rek la war a sangu cat ak luy dindi rab góor ak jigéen man boo ñëwoon tey xam nga am naa benn garab boo xam ne day joxe richesse 350 mille mën nga teg fii 5 millions du la ko jox su ma la sentirul du ma la ko jox te man yàlla dafa ma baaxee soo narul wér ci man dañu xulo booy dugg ñu xulo dugg sama jinne di jog dama lay ramasser comme pas possible fekk c'est juste que suñuy raw xam ñoo àndul dama ko ñaan yàlla mu nangoon ma mais yàlla bi ma tiim xam ne ne je suis gis nga suma xuloo ak yow demee ñëwaatal billaahi ak alxuraan bi duma la xàmmee man duma xool nit ñi nee naa la un cœur pour vous écouter une compétence pour pour vous soigner Dieu pour vous guérir man damaa tal xool nit man nit nit ki yàlla laay gis ci moom booy wàcc sax kii nekk ci porte bi lay na eh ñëwaatal suba du la sax xàmmee ah bon billaahi du la xàmmee j'ai pas ce temps là man dama am temps di xuloo bu ma bonoon yàlla dina def ci man doon faj xoolal tey Europe Europe ñoo ma gën am ñoo ñoo ëpp confiance ci man que Sénégal parce que dañoo gis résultat te ñoom dañuy tëj seen biir di seetaan YouTube yi fi ñuy seetaanee ku nekk dinaan waaw faj na ma lii faj na ma la mèche s'allume bouche à l'oreille tey moo ma jox li li ma am yàlla xam ne par jour man ce que je reçois de l'extérieur c'est deux fois ce que je reçois du national mooy damay naan boo dem soxla rek ma dem ma dem extérieur ne réew mi xam ne am nañu un digne fils sénégalais bu yàlla may ci loolu am na lu ma mënul faj nag tension par exemple boo ñëwee dama lay naan mënuma faj tension luy régulariser tension laa yor xam nga mu ngi mel ni AVC dafa am ñaari AVC AVC ngelaw seytaan AVC tension képp ku am AVC te bi nga am AVC sa tension mu ngi ci ay 10 ay 11 ay 12 xamal du tension bi mu la daaneel ñëwal ma faj la AVC boobu comprendre nga fi may waxee loolu xam ngelaw seytaan tubaab gëmu ko mm-hmm. te ñun xam nañu ngelaw seytaan am na mm-hmm. n'est-ce lu am xam nga par exemple poftal bii ngeen di xeeb nii parce que xam nga poftal garabu richesse la poftal garabu jalbu la ak dafu défense xoftal mun nga ci taal nit mun nga ci rey nit. bi ngay xotti muy génne soow. waaw mu ngi nii sax buntu kër. garab gënu ko te noonu lañ ko yebee garab gënu ko à part bi may joxee 350 mais boo ñëwoon tey ne ma 350 doon na déedéet sangal sa yaram dindil cat ba pare am na benn saawar boo xam ne day dindi rab day dindi fétiche envoûtement da lay désenvoûter ba pare da lay blender man de ñaar yi laay sangu maa ngi ñaan yàlla su ma laalee bayre sax yàlla bu mu jàpp parce que xam naa li ne ci bayre bayre daal bi may def mooy bayre xaalis boo dee may wëri xaalis xaalis di ma wër man loolu laa gëm. Eh, docteur ñoo ngi lay jëfal bu baax gis nañ ne da joxe ay solution yu am solo. te sénégalais yi soxla ko. Euh, pour atteindre maximum de personnes euh, nan nga organiser sa liggéey. am na ñu mën a ñëw dakaar am na ñu mënul ñëw Dakar est-ce que da nga yor ay antenne relais yoo xam ne pour mën a atteindre maximum de personnes pour mën a jàppale sénégalais yu mën a faju xalaatuma ko sax am naa sama doom mu ngi yéegee ma six xamul benn garab xam nga accident bi ma am cinq avril mënoon naa ci dee parce que ñi dee ci accident bi gënuma leen bu xamul benn garab fii lay toog gis nga garab yi des xamu ci tus toog nag naan il est docteur ñu bëri ñi ngay naan ni ngay dégg sama bàyyi laa ko donnee noonu rek la ñëwee de xam-xam kenn du ko doon da ngay jàng bii moo waroon jàngal nit ñi moo waroon ëpp xam-xam ko jàngal nit ñi di ko transmettre nit dañ kaa jàngal jibril moo ko jàngal nga naan yow dañ laa sol en parlant de sol kiis am na pour ne xel ne xelu xale man boo ñëwee par exemple nga ñëw ne ma kiis mag ma ne la déedéet 18 ans rek la man kiis bi ma yor 0 ba 18 ans la pour neexal xel justement am na benn garab bu may joxe muy bayre njaay bu leen foog ne boo laalee bayre njaay rek une semaine rek day dox de déedéet bayre njaay da ngay laal lu mot 28 jours du tuuba ba mu sax ci sa yaram sénégalais moo yàkkamti mu doog a ñëw waaye laal une semaine loolu baaxul sax. waaye boobu daa xaraam loolu baaxul man du ma ko def nit kooku c'est important ma souligner ko beneen point ba mu bëgg si suñu ngeen baal ma mos naa wax ne je connais tous les francs-maçons de ce pays gars yi foo ne man franc-maçon la dama leen bëgg xamal ne dafa am benn njiitu réew bu ma yar kooku mu doon représentant franc-maçon yi ñu fa doon dugg xam naa leen foofu laa doon waxee ñi koy fréquenté xam naa leen foofu laa doon waxee mais man du ma franc-maçon man yàlla laa gëm de man allahu ismu allahu laa wér de ba am li ma am allahu tout court astaghfirullah pas tout court allahu nañ ko réel nag xam nga tuur boo mënti wér de ci àdduna ci allahu ngay ñëwaat boo wér de ah mun allahu ma ngay wax boo ne shay jagasitu allah ngay wax boo ne amul lamut allahuma ngay wax boo ne sukabitu allahuma ngay wax boo ne day sun tasun allahuma ngay wax boo ne balaxa sa sax sasu xas takam sas allahuma ngay wax boo ne sax sasun asaxasum sa tasun allahu ngay wax loo mënta wax allahu rek kuy allahu bi ngay ñëwaat donc allahu mooy lépp man allahu laa wérdate ba am li ma am te billahi su ma jëloon course léegi-léegi di wérd damay tëju suba sama journée du neex dafa mel ni yàlla daf ma ne may naa la dèjà loolu ñaan na ci mos naa ne démb la na woon rek benn sama benn xarit ma ne man yàlla may nam lépp na mooma dara mu mënul nekk yàlla du may lépp ma ne ko yaa soxor yaay ñaan man xam naa am naa lépp li ma soxloon ci yàlla may na ma te leer na ma ne sax ñaan naa ko ajjana ci àdduna ajjana ci àlaxira te may na man de maa ngi dund ajjana may na ma ko man je n'ai aucun besoin à de soigner les gens bu ñu ñëwee xayrum bu ñu ñëwee c'est mon problème su ma tëddee cent ans di nelaw dinaa lekk dinaa parce que yàlla moo ne wa maa min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitaabin bi donc du liggéey bi moo may dundal yàlla moo yal na la ko yàlla def amiin yaa rabbi. aussi te képp ku ma bëgg na ma ko ñaanal. yal na la képp ku ma bañ man maa ngi la koy ñaanal yaa xam. yal la ko yàlla defal aussi tamit bëggoon nañu xam tey mm. euh, talent bi nga yor si wàllu faj. tey est-ce que état bi bu la sollicité woon. Mm. pour collaborer ak yow. pour mm. nga jàppale nit ñi pour ñu faju. duñ ko mën sax ñemewuñu tubaab yi. tubaab tubaab yi ñoom moom réew mi. lu ñu wax rek la wax gëmuñu suñu bopp suñu bopp maa ko wax dañ ma ci tëj bopp état bi président Madagascar du dégg ngeen coronavirus mu ne leen ah, trouver na solution pour coronavirus pourtant c'était réel mais xoolal politique politique bi ci def ba ba kën gëmu ko parce que bëgguñu bëgguñu alal ji eh, eh, ñëwee foofu bëgguñu bëgguñu bëgguñu résultat yi jógee Afrique ils veulent que bu ils veulent monopoliser loolu dong la loolu dong la te man leer na ma ne ku mel ni njool ba mun na faj coronavirus man de am naa garabu coronavirus jaayu ma ko c'est pour sama bopp la usage personnel man début août amoon naa coronavirus parce que Seydina Mohamed amoon naa ko maa faj sama bopp maa faj sama bopp sama garab yi ngi nii sama jaayu ma ko nag néew ma nag damay faj si coronavirus garab bi yow yaa ko créé sa bopp maa ko composé moo tax dañu ma ko composé comme ku mën garab moo ma composé du ma fenn lii ak lii ak lii ak lii la ci def mu jox ma ci 5 kilos xaw ma su ma ci soxloon 500 kilos daf may jox man j'ai des vaillants connaisseurs de vaillants hommes d'état man ay président ñoo may sollicité de <laughs> man duma ko dàbb de man man xool ma damaa nam ma dara man allez-y dans mon village demandez si je suis vrai homme d'état ou pas guddi guddi kane lu ma am nag kane la jëm nee la benn affaire mon seul objectif est de construire le pont entre Dakar et Gorée ma may ko état chaque région de Dakar de Sénégal ma tabaxal ci Sëñ Tuubaa juma ak résidence. say projet la waaw xam nga sama mbokk dañ maa bañ parce que murid laa léegi maa tey lu ma lu ma wàññi ñu ngi gis man may may avancé rek man damay avancé rek Sëñ Tuubaa àndal avancé rek. te ñu ngi may ñaan ñu ma duloon ñaan sax ñu léegi ñu ngi may ñaan jërëjëf Bamba hmm? waaw maa ngi tabax résidence Xaadimu Rasul Kanel ku dugg Kanel tey di nga ko gis mu neex la di nga ko gis mu naqari di nga ko gis kat R plus 1 lépp kër Sëñ Tuubaa la chiffre 4 bi moom la moo tax ma defar ko 4 R plus 1 dóor ci pisin ba mu rafet ba mu yànj parce que nag pour man moom ma représenté Kamal la perfection te pare gu ma de ba léegi ñu ngi ci chantier bi lu ma ci deful rek te fekk su ma paree juma am laay tabax au Fouta mosquée Mouride au kër du Fouta ku mu neex ku mu naqari bu yow bu ñuy jël seen kurus nag ñu naan du fi am nañu nañu xam ne naa ko def ci laa nekk te kenn mënuma ko tere def incha allah xanaa yàlla. docteur ñoo ngi lay jaajëfal bu baax euh, presse bi yëpp dañuy ànd ak mbégte. Hmm. waxtaan bi ñu saq ak yow vraiment euh, question yi nga xamante ne jot nañu nga ko laaj vraiment nga tontu ñu si ay question yu positif ay réponses yu posi yu positif am nañu satisfaction si laajte yi nga xamante ne laaj nañ la ko. Hmm. bu fekkente ne am nga ay kaddu yu mujj yooyu daaneel si émission bi. je crois qu'il y a Sunugal 24 ici. Sen TV Info maa ngi leen di remercier Setsima TV maa ngi leen di remercier Cey suñu Cey Sénégal je vous remercie Wassare News maa ngi leen di remercier Dakar Midi maa ngi leen di remercier Leader TV aussi maa ngi leen di remercier Mahfouz mos na laaj euh, c'est pas am na lu ma bëggoon joxe mais ça va pour prisonniers yi mais ça va non ça euh, par contre ñi doon faj ñiy faj asma ñi ma faj asma yëpp ci 4 semaines ñu wér dama leen jox benn alerte hivernage mu ngi ñëw nañu xam ne asma bi dina dina dikkaat ndox mi daal souffrir rek dinañu sentir euh, quelque changement nañuy préparer ñuy jël deuxième ordonnance bi asma noonu lañ koy fajee asma dañ koy faj hivernage mu wér peñ une fois wala bu dee or hivernage koy faj deux fois koy faj deux ordonnances koy def de 40 minutes ça c'est important souligner jërëjëf docteur ñoo ngi lay jaajëfal bu baax. est-ce que xam nga on est 23 heures 23 xam nga kañ laa gëj a nelaw démb à 14 heures démb ak 14 heures donc j'ai j'ai fait presque combien. 34 heures temps nelawuma billahi wallahi tallahi wal pour